73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóor. Sonko TV ziar naa leen waa leer point net Macky Sall da leen rey si àll <laughs> daa mel xeex lañ bokkoon de barki Rasulullah Macky Sall kuy ànd ak moom mu lay fay xaalis nga yaa ne da nga ci gundaan daat yaa ngi nax sa bopp xaalis si faramason yi góor jigéen ñi lobi te lay jaay nii rek mais doo ci enjoy benn nga dee mbaa nga dof mbaa nga tële mbaa ngi génn réew mi loolu moom béyoon na ko ñëpp xam nga ñoom ñoom combat Adji Sarr bi ñoo si newoon doon ko def live ak yi ma xamul ba leen rek gisaguñ dara Macky Sall convent mi ku ku sa nday torox rek siy nekk ñëppay dee. salaamaaleykum Sonko TV maa ngi leen nuyu di leen siyaare di leen bëggee di wax ne daal sit bu fi war a leeral di lëndëmal yàlla xam na nit ñi di la xaar si jigéen gu doon fen nga ñëw muur ak jigéen mu mel ni jinne nga ne da direct def foo direct yàlla xam na képp ku doon lëndëmal ak képp ku doon leeral tuddee sa boppu leeral yàlla xam na yàllaa ngi fépp mi ngi gis lépp mi ngi xam ni fen mi ngi xam ni complot mi ngi xam ñu ànd ak saytaane voilà di wax ne daal képp kuy ànd ak Macky Sall si na nga def attention képp ki ànd ak Adji Sarr na nga def attention voilà lii daal laa xam di leen ko wax ay nit la yoo xamante ni ah fenal nañ Sénégal rey nañ ay bakkan si ay feni kese ay complot ba askan wi nit ñu sell ñëpp ñaanal nañ leen ñaan yoo xam ne ci weeru koor yi képp koo xam ne takk nga si ah na nga def attention képp koo xam ne takk nga si mbirum Macky Sall def attention parce que it bu ko topp di la lëndëmal say mbir dana lëndëm kurus voilà képp koo xam ne nag ah yaa ngi fi na nga bàyyoo sa xel tey def dëgg tey jubal tey leeral te bàyyi tooñ. Eh, Sonko TV jaar bëgg naa waa ah, Dembélé maa ngi lay jaar Dembélé xoolal waa leeral li ñu wax ci soxna Ndeye rek li ñu wax ci moom lii nga xam ne dara amu ci existé wu ñu koy jël di ko teg ci deru gor waaye nag mu ngi noonu. asalaamaaleykum Sonko TV waaw détermination waaw kenn wax Macky Sall nag maa ngi leen di xamal leen képp suñu groupe bi journaliste bu ci topp Macky Sall ci dem nga di ko topp da ngaa def Mourtada Macky dafa xërëm a xërëm a xërëm maanaam journaliste yi koy topp ak ñi koy topp yëpp dama leen wax jàpp rek dégguñ xaaral bañ commencé seen campagne waaw cortège bu ko topp waxuma la dara waaye gendarmerie police sax dañuy dee maa la wax ni dafa fees del del dafa gemboo ay xërëm ba fees del del del ñëpp leen leen jiital ñëpp dana leen ku ci sa bopp woyof xam dañoo war a am seen ful am seen fayda du ma dem waaw ku ko topp xam waaw mais waa lëndëmal point net moom fii leen yàlla doon xaare ah, ba fi lu la dëm ba fi lu la dëm moo tax daal booy tooñ tooñal koy amat doole <laughs> te ku la tooñ bu ko tooñ te it tooñ juga laaj nag tooñ juga laaj Ousmane mi jëloon tooñ doomi jàmbur la de di ko njàmbur di woo Adji Sarr taal say caméra mi saaga rek nga yaar ne yow yàlla moom newu fi <laughs> Macky Sall ni seen gannaaw Macky Sall Sénégal rek lu contrôlé yàlla suñu borom mu contrôlé ñëpp moo ne si gannaaw Sonko voilà ay gune ndaw ngeen sacrifié leen jël seen deret naan seen deret sacrifié leen nii ci kaw tali bi xam ngeen ne xamoon ngeen si dara de Macky Sall bu bon mi la nëmal point net Benno Tas Yaakaar parti réew mi xama parti bitim réew ñi ñoo tardeel Sénégal ñi ñoo tardeel Sénégal billaay buñ bañoon biñ bàyyi woon Sénégal biñ bàyyi woon Sénégal ñaari at non nga xam ne ñii ñoroon lekk Sénégal Bassirou Gueye mii moom moom moom ku gën a bon moom Moussa Niass ak Macky mu juddoo ba tey mosuma koo dégg fenn moom léegi man mate ne Papa Ndiaye ba dur ba bu ko fi tëj ñetti weer ah non xeebuñ kenn melentaan sax mën nañ koo tëj. salaamaaleykum sama gars yi ziar naa leen yéen ci jàmm. alhamdulilah macha allah ñu ngi nuyu waa kër gi ñëpp di ziar ñëpp ah, di ñaanal ñi gaañu ni yàlla leen yàlla yërëm waaye man de bett ma mhm, ndax ñoom ñii ci complot bi lañu bokk leeral point net bii ñoo fi génnewoon aji saar ci complot bi lañu bokk kon nag complot bi moom ku ci bokk ku nekk xaaral sa wàll ci nar bi rek te xam ne di nga jot sa wàll waaw bettu de nit moom ku yàlla baaxal nga bëgg a yàq ku nekk yow yaa yàqu complot bi képp ku ci dugal sa loxo. xaaral sa wàll ak journaliste ak avocat wa ku mu mën a doon ku dugal loxo ci complot Ousmane Sonko bii ñu jox la ci xaalis walla ñu ger la ci wala nga bañ Ousmane Sonko tax nga nga nga nga bëgg yàq deram xaaral sa wàll ñi tukkeeg ñi voyagé ak toog seen bureau ku ci nekk na xaar wàllam ci nar bi te xam dinga nga jot sa wàll waaw ku ci bëggul jot sa wàll nag teelal génn jéggalu Ousmane Sonko ni ko man mii kat xamoon naa ni complot la ma àndoon ci. xamoon naa ne lii complot la ma àndoon ci jéggal ma képp ku jéggaluwul di nga jot sa wàll. salaamaaleykum sama gars yi ziar naa leen yéen a ngi ci jàmm alhamdulilah macha allah ñu ngi nuyu waa kër gi ñëpp di ziar ñëpp ah di ñaanal ñii gaañu ni yàlla yàlla yërëm waaye man de bettu ma mhm, ndax ñoom ñii ci complot bi lañu bokk leeral point net bii ñoo fi génnewoon aji saar ci complot bi lañu bokk kon nag complot bi moom ku ci bokk ku nekk. xaaral sa wàll ci nar bi rek te xam ne di nga jot sa wàll waaw bertuma de nit moom ku yàlla baaxal nga bëgg a yàq ku nekk yow yàqu complot bi képp ku ci dugal sa loxo xaaral sa wàll ak journaliste ak avocat wa ku mu mën a doon ku dugal loxo ci complot Ousmane Sonko bii ñu jox la ci xaalis wala ñu ger la ci wala nga bañ Ousmane Sonko tax nga nga nga nga bëgg yàq deram xaaral sa wàll ñi tukkeeg ñi voyager ak ñi toog seen bureau ku ci nekk na xaar wàllam ci nar bi te xam di nga jot sa wàll waaw ku ci bëggul jot sa wàll nag teelal génn jéggal Ousmane Sonko ni ko man mii kat xamoon naa ne complot la ma àndoon ci xamoon naa ne lii complot la ma àndoon ci jéggal ma képp ku jéggaluwul dinga nga jot sa wàll.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 73 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee